Touba ca kanam liggéey na liggéey yu am solo lool ci dëkk bu sell bii di Touba ci diirum ñetti at yi di liggéey boo xam ne lees mën a teg bët la loole ñu amal ko ci fànn yu wuute boo jëlee ci wàllum wér-gi-yaram bañ tegee xeer bu njëkk poste de santé bi nga xam ne moom lañ liggéey ci Touba Lansar te Serigne Mountakha Mbacké Bachirou tegoon xeer wa liggéey nañ ko ba mu àgg liggéey it poste de santé bu Bogorel ak bu gol yooyee yëpp noppi benn bu ne ñu def ci ci koppar lu ëpp téeméeri million am yeneen yoo xam ne jamono bi ñu ngi koy liggéey te léeg mu noppi muy poste de santé bi nekkee ci daarul xadim ndaam ak Touba Njaareem mu nekk juróom benn poste de santé yoo xam ne Touba ca kanam liggéey na ko ci dëkk bu sell bi di Touba ci diirum ñetti at yi poste de santé yooyu mu équipé ko def ci ay jumtuwaay yu mucc ayib boole ci lu toll ci juróomi ambulance yoo xam ne def na ko ci dëkk bi am ci benn boo xam ne jébbal na ko ñi nga xam ne ñoo di waa sapeur pompier boole ci ñaari camion citerne yoo xam ne dañuy fay lakk ñuy bañ a am benn jafe ci liggéey bi nga xam ne ñu koy amal ci Touba Mbacké boo jëlee wàllum assainissement moom it Touba ca kanam def na ci jéego yu am solo lool ci dëkk bu sell bii di Touba ci diirum ñetti at yi ku ne xam na ne dëkk bi jamonoy nawet day taa rawatina mbedd yu mag yi loolee Touba ca kanam def ci yitte yu am solo jënd ay pompe yoo xam ne dañuy pomper mboolem quartier yi nga xam ne ndox mi da leen sonal waaye sëkk mbedd yu mag yi nga xam ne dem dikk bi dafay gën a yomb ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di oto yi rawatina jamonoy màggal ba léegi mu teg ci juróomi camion yoo xam ne dañuy an mbalit ñu jëbal ko xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou boo jëlee it wàllum éclairage public dëkk bi nga xam ne moo di Touba tolloonay jamono la lëndëmoon na lool waaye Touba ca kanam def ci liggéey bu am solo lool def ci dëkk bi lu toll ci juróom benn junniy làmp ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ci lim le junni yi ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk yi lampadaire la yoo xam ne yu jamono la ñu def ko ci mboolem quartier yi nga xamante ni lëndëm da leen a sonaloon te ñàkk karaange gi ñu nemmeeku woon ko fa. liggéey bi jëmoon ci leeral dëkk bii di Touba def nañ ci lim bu takk lool ci ay millions. boo jëlee wàllum ndox mi it Touba ca kanam liggéey nañ ci liggéey yu am solo lool ci diiru ñetti at yi ndax Touba nekk na dëkk boo xamante ni jafe-jafe ndox dafiy am yenn saay ba tax na Touba ca kanam jóg taxaw ci temm ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di askan wi seenum ndox di bañ a manqué benn yoon. moo tax ci diiru ñetti at yi Touba kanam jàppale na fanweeri quartier ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba waaye it jënd lu toll ci juróom benn pompe yoo xam ne dañ koo jagleeloon forage yi nekk ci dëkk bi dañ daan paan saa su ne yemu ca ne jënd na lu toll ci ñaar fukki réservoir yoo xam ne benn bu ci nekk day def juróomi junniy litre loolee lépp jëm ci jàppale askan wi ci ñuy bañ a am jafe-jafe ci wàllum ndox mi. wàllum éducation di njàng meek njàngale mi it Touba def nañ ci jéego. ndax ku ne Touba ne ay daara loolee moo tax Touba ca kanam jël lu toll ci téeméeri daara daal di koy yeesalaat defar leen ay mbaar yoo xam ne ca la ñuy jàngee ay néeg ak ay wanag. yemu ca ne projet bi nga xam ne moom la xalif général de Mourides door muy université bu Touba keroog ba ñuy teg xeer ba Touba ca kanam yëkkati lu tollu ci téeméeri million ci suñu koppar. ne moo ko tàmbalee ci liggéey bi liggéey bi door mu sosowaat beneen batiment boo xam ne xayma nañ ko ci 800 millions de francs CFA di batiment boo xam ne ci lañuy jàngee xam-xam ci université bi fa yéene koo liggéey ba ma àgg daal di ko jébbal sëriñ bi. Touba ci kanam ba léegi ci wàllum environnement ci diirum ñetti at yi def na ci ay liggéey yu am solo lool fi nga xam ne moo di ci Touba Mbacké ndax jëmbat na fi ay junni junni garab boole ci ale bi nga xam ne moo bàyyi ko ci entrée Mbacké bi ba ni nga ñëwee Touba. muy ñetti kilomètre ci dem beeg dikk bi lépp Touba ca kanam jëmbat ko ay garab ngir gën a naatal dëkk bi waaye gën koy taaral boo jëlee wàllum social ci diirum ñetti at yi Touba ca kanam def na ci lu toll ci cinquante millions de francs CFA. te loolu bàyyeekoowul ci ñaar yi nga xam ne moom la taalibe yi joxe. jagleel ko ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi te seen loxo jotul seen i ginnaaw rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier sancaan yi ak ñi nga xam ne dañoo feebar te amuñu lu ñu fajoo ñun ñëpp Touba ca kanam jàppale leen ba ci daaray alxuraan yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi Touba ca kanam jàppale na leen ci wàllum social ba ci grande mosquée bu Touba daara kaamil ji nga xam ne ñoo fa nekk ñoom saa su ne Touba ca kanam mi ngi leen taxawu ci fànn googu le ci xeex jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus bi Touba ca kanam def na ci lu toll ci 45 millions de francs CFA jagleel ko ndimbal ak produit yoo xam ne jënd nañ ko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 loolee mu koy jilaat di ko defaat ci dëkk bu seele bi di Touba. taalib yi nga xam ne ñoo ci dugal seen alal itam sëriñ bi ngeen di sant ngir xam ne ku ci jëf sa ku ci ku sab dërëm dem àgg na ci Sëriñ Touba ndax li ngeen di laaj ñëpp teg nañ seen bët ci fi ngeen koy def ngir xam ne kuy jëf bos soobee mu àgg ci Sëriñ bi. noo ngi ci yeesal suñu cant cant gu rëy di si yeesal suñu jaayant di feddi suñu laxasaay mm-hmm. waaw di di di di di di santat di santat di di am mbégte mu ma am ci tolluwaay bi mm-hmm. ndax xam naa ne nii nii nii rek lu ci ne mm-hmm. suñu tool noppi na ci waaye lu ci ne dañuy dox ba ak ci fii nu toll nag alhamdulilah mën nañ cee dolli ko yaakaar mën nañ cee dolli ko yaqin mën nañ cee dolli ko lépp nga xam ne sëñ fàggu lépp